Sall lu mu wax leer na nee na décision bu mu jël pour bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 yi nee na choix bu libre la te souverain. te moom nee na amul benn pression boo xamante ne teg nañ ko ko mu di société civile bi walla opposition bi. ci atum 2018 dama bindoon ci sama livre mi mu duppee le Sénégal au cœur ma wax ci ne bii mooy sama dernier mandat. waaye bi may gagné élection présidentielle bi tey jii am na juróomi at. ñu bëre yàkkamti woon nañu wax ni ci campagne bi ñu doon amal di ci wax lu dul dëgg wax ci ne dama bëgg ñetti mandat te loolu jotoon naa ko leeral ba noppi. moom daal loolu la wax ci benn entretien boo xamante ne ëllëg la nar a génn ci journal Le Monde kii di njiitu réew mi mu ngi expliquer. am na ñu bëre ñoo xam ne ñëwoon nañu ngir wone ni ànd nañu ak man ngir ma laajaat beneen mandat. dimanche 2 euh, juillet amoon na lu toll ci 512 ci ay élus ñoo xam ne ñëw nañu jox ma seen pétition ñu bëgg ma laajaat beneen mandat ñu bëri nag wax nañu lu ne waaye man loolu yëngalul ma woon ndax loolooy démocratie waaye ba tey ku ne mu ngi wax li mu xam ak li mu xamul. kii di président Macky Sall moom daal dakkal na suspense altine bi ñu génn mu doon lu bett ñiy bokk ci parti bii di APR ci entretien bu mu amal ak waa journal Le Monde moom daal mu ngi xamle ne. mësula tenté pour def troisième mandat. lenn moo waroon a tax ma déclarer sama candidature mooy bu fekkee demoon nañu ba réew mi nekk ci jafe-jafe nekk ci instabilité waaye comme loolu amuloon moo tax ma wax ne duma laajat beneen mandat. kii di président Macky Sall loolu la wax.